xamante ne lii xew na démb waa seen TV dañu ñëw juste fekk ma ma nekk sax ak xale yi ñuy waxtaan ci kër gi di leen état noonu euh, ñu ñu daan leen xëy na te ngeen sax fii ndox baa bi ma defee loolu ñu daan ni nañ dem sur le terrain comme journal bi def ñu dem sur le terrain def benn visite sorewuñu sax parce que déjà ndox mi moo ñuy baare mënuñu jàll après ñu taxaw fenn def élément bi man ma def appel au président Macky Sall def appel au ministre Aly Ngouille Ndiaye def appel au ministre Abdou Karim Fofana élément bi jàll direct sur Sen TV bi mu jeexee ma ànd ak journaliste yi dox di ñëw suma kër Abdoulaye Baldé moom témoin la ci ak quatre caméraman yi mu àndaloon ñëpp bu ma taxaw suma buntu kër dugg sama bir kër jël benn brique de jus di may journaliste yi ñu naan fala ma ñaari conseil municipalu maire fekk xale bu ñuy wax Lamine Thiam ak Woulimata euh, Seck Lamine Thiam ñu di ñu saaga ay ndax ñu yëpp ah. après man man waa ku muy waxal day na xale bu góor bu tudd Galas Gueye ñu dend daal ni ko ki ngay saaga defu la dara parce que moom député la liggéeyam lay def mm-hmm. mooy ci bant bu muy sokkoor la xalap ma ko <coughs> dóor après euh ji jigéen ji man duma ma rek rom rakam la aw ma nu benen beneen conseil municipal bi xotma xam nga après ñu était devant les journalistes daal hein. ñoom dañuy s'apprêter à regagner leur voiture dañ doon jël sen oto donc euh, man tudduma sen maire waxuma len waxuma ñom dara amee li ma wax je député dans l'exercice de mes fonctions bu nekk am na droit ñëw laat ma ma wax amet man dayo bi ma yàlla jox ma di ko sante la su ma toll ci Sénégal dëkk yëpp ak li ñuy neex neex ginnaaw raay nooro ma ci gënal ndax dëkk bii ma dëkk sama papa yor na ko presque quarante génn àdduna bàyyi ci njabootam kër gii ma dëkk sama papa dégg dañu naan quartier Daouda Fall moo taxaw ci kër gi ñaanal ma ci kër gi man am na mën a dëkk ci àdduna ginnaaw su ma demee ba ginnaaw raay mel nii ak li may wax ci àdduna bi awma droit woo autorité yi pour ñu ñëw jàppale ginnaaw raay noonu jàppale coono bi nga xamante ni waa ginnaaw raay moom noor moom lañ nekkee amet man kon amatuma baat hmm, defuma leen nag waxuma leen léegi honorable foo mujjee euh, foo mujjee ak ñoom euh, dem nga uti certificat médical wala. waaw dem naa uti certificat médical wax dëgg yàlla. Mhm. ci guddi gi. Mhm. à notre su bu surprise tax. Mhm. parce que bi ñu teggee Dominique. di ut certificat médical. maire bi en personne. moom moo jóg dawal otoom fekk ñu Dominique ne day defal ñaar ñooñu certificat médical. parce ah. que ñu fekk. Ah. ñun dañoo ñun bi ñu toogee. ñun bi ñu toogee ak docteur bi lu tudd. man may niir man may niir li ma docteur bi ma dóor yàgg bi may niir docteur bi di ma consulter téléphone am sonné mu ne allo monsieur le maire xam nga xale ñooy xam lu nekk xale yi daal di ne kii di woote de xëy na Amadou Jara la parce que comme Dominique foofu la te ñoom Cheikh Oumar Talla dañu ñëwoon dañu ko yëg bay ñëw foofu noonu ci Dominique bi ñu ne xëy na Amadou Jara la. ñun dañoo génn rek yam ci taxaw ci bi ñu oto bi nga avancé pour jël ma parce que nous sommes maa ngi après ñu gis maire gaare ak otoom daal di ñu taxaw comme si porté maa tey daal leen wàcc leen yéen wàcc leen wàcc leen bon la vidéo circule ñëpp xam na ni kon parce que bi ñuy def bi may def émission bi en ce moment maire bi ñu ngi doon réunion ak ñoom ñoom conseil municipal yi di préparer

lépp lañ doon yàq. Eh ki dem bu saaga ndey lu nekk wax nañu ko euh, des waxuma la dara mais ñu gis ñu fu ñu leen gaañ ñoom bu gaañantee xëy seen biir parce que ñoom ñoo doon jël ay damitu mool di ñu ko sànni. ñu hmm. naan waxu leen dëgg euh, li ngeen nekkee nangam nangam affaire yu ñaaw di wax wax yu ñaaw man boobu temps te ñu ma sax ba mën a wax parce que ñu ñaan ma tiim sotti ma ndox ma tëdd ci ma tëdd sama biir nekk après bi may génn ci dem nag laa gis prix yi. yépp nekk sama côté kër ñu sànni ko ci biir kër gi parce que teel teel ji moom maa ngi ko doon dégg parce que dañ ma jël dugal ci biir kër gi. ma daanu xale yi di ma di ma xëpp ndox. donc xam nga vraiment métti na mais nag du ma découragé mais nag.